da àndandoog ñaatam ba nga xam ne nag euh, tey jii yaa ngi dem seeti koo xamante ne nii Sénégal dafa des ci seen xol yi daf ci tooy ba tey mu di Ablaye Mbaye nga xam def mhm. na fi lu ne ci wàllu musique nag mhm. mu amoon handicap boo xamante ne am na ko mais terewul surmonté na ko ba am un nom boo xam ne def na fi ba faaw Ablaye mhm. Mbaye euh, bi mu naan dafa am lu daw yaram lu mu doon wax bi mu naan Euh, sama yaay gisul musul gis sama sama sama kanam benn wax bu mu ko doon wax loolu dafa dafa dafa doy waar euh, ba noppi tam mu liggéey fi yàlla def mu jóge fi bàyyee ko mm. fi bu yàggul mm. yàlla na suuf oyof ci kaw moom Ablaye Mbaye waaye it euh, rakkam bu jigéen nga dem seeti ji ko ci rubrique de décomplexé dëgg la rakkam boobu nag Kebs ñi ngi ko découvrir oon ci relève bi bi doon am fii ci télévision Futur Média ba mu final bi bokkoon na ci muy maam Kumba mm-hmm. mën a woy ñi ñëpp doon ko doñ ko doñ ko kii parce que du woon sax laago bi waaye dafa mën li nga xamante ne moom la moom la doon def mu nekk koo xamante ne rakk magam tette na ko waaye bala ñoo ñëw ci commentaire yi dañuy seetaane li nga xamante ne euh, waxtaan nañ ko ak moom mm-hmm. ndax loo gën a xam nit nit gën laa xam boppam ñu dellu si waat léegi waaw émission relève bi laa dooree si laa njëkk def ak orchestre musique mm-hmm. mais mu nekkoon émission bu bu xawoon difficile kontaan tamit amoon ci stress parce que ku ñëpp na yow la rek ñi di la votel di def seen xaalis ci yow soo soo soo leen xel rek après day metti ci yow mais neexoon na trop trop parce que gars yi jàpp nañ ci ma finaalu yàlla def li mu def sant yàlla daal. laay sama diggante moom li ma ci li ma ci mën a wax mooy mag ju baax la woon mag ju amoon yërmande ci famille yoom yëpp doon ma gunge ci musique man mën naa ne ba mu fi jógee ba léegi sa damaa wéet parce que duma am ko ma waxtaanal mu ne ma defal nii wala defal nee. jege woon na ma jege boo xam ne lu ma def ci erreur rek daf may wax bul defati lii waaw loolu laa ci dund mu ku baax ma koy ñaanal rek yàlla yërëm ko fi mu nekk. maa ngi continuer ba léegi ci musique bi mm. d'ailleurs def naa benn video ak Pape Cissé mm. waaw vidéo bi mi ngi jàll ci après Korité 2017 mm. waaw mi ngi jàll fii ci TFM kili baa ngi TFM Pape Cissé moo ci jàpp ma ko ci nii bu baax a baax a baax a baax parce que vraiment nit ku baax la te xam naa ne daal lu baax la ma bëggaloon sant rek di ko ci nii bu baax. ko ta tagal ko yërëm ko dama doon rendre hommage Ablaye Mbaye le 30 juin bi 2018 tombeek samedi waaw mu nekkoon tamit sama anniversaire mais li tax ma gën ko ci yokk rendre hommage damaa jàpp ni Ablaye def fi lu war a fay waaw def na lu nekk ci musique moo tax ma doon ko rendre hommage jël sama sama son ak ay soowam di ko boole. waaw côté musique bi de maa ngi nii maa ngi ci bu weesoo vidéo bu ma def ak rendre hommage ba def Ablaye Mbaye maa ngi xaar daal après tabaski am na lu ma bëgg def parce que gars yi nee nañ naa bii saat léegi dañ ko war a raxas. waaw léegi daal maa ngi koy préparé di ci woo ñëpp di ci woo ñëpp nag képp ku daan jàppale Ablaye te nga bëgg ma jàppale rek maa ngi lay tàllal loxo bu baax a baax a baax pour ngeen jàpp ci bu baax a baax parce que man tamit damaa bëgg a dimbali sama yaay comme Ablaye fi mu kon ñi ko doon jàppale ñëpp daal maa ngi xaar ku ci ñëw jàppale ma rek man tam maam lu ma dimbalee sama waajur parce que way laa bëgg tamit donte mënu ma ko waaye maa ngi ciy taxalee bëgg naa ko trop ku ma ci jàppale rek ma jël nga nekk ak liggéey boo munti dëgg boo munti bëgg rek na nga ko gëm te dëggu ci muy muy leneen lu mu mën ci doon man su ma sañoon ku nekk li nga mën ci laago parce que tamit waroo toog rek ne damaa laago damay taalal loxo wala damay toog xaar ku ma may déedéet da ngay jug volontaire parce que lii lii ñu dal nii bu dee silmaxa terewuñoo dox bu dee handicapé nii tere terewuñoo gis parce que ku nekk rek li la yàlla xañ rek may na la li ci des suñ jugee góorgóorlu rek jàpp ci rek dina baax na ñëpp jug waaw maa ngi góorgóorlu maa ngi góorgóorlu bu baax a baax parce que Ablaye bàyyi na ma ak ay nitam yoo xam ne ñu ngi may jàppale kon damay góorgóorlu ku ci mel ni Pape et Cheikh ak Yoro Ndiaye Alé Dieng dañ may jàppale dañ may conseil ci musique te su ma ñemee musique tamit ñoom ci lañ bokk ci lañ bokk na damay dem seen soirée di yéeg te dañ may jàpp comme ku comme kuy gis rek parce que Pape Cissé lu bari lool la ma doon wax bul jàpp ni doo gis rek dangaa war a tayal wala dangaa war ne lii ko lépp la ñuy jéem lépp la ñuy jéem yàlla dina ci jàpp incha allah yaay booy yaay jigéen mi ngi noonu euh, rakk la ci Ablaye Mbaye ñaatam mm-hmm. euh, muy nag euh, lu am solo loo xamante ne ni neex na baat moom moo finaal woon ak Yacine ak Yacine maa tey nopp la waaw ci émission relève bi dëgg la kepp si c'est bien ñu koy fàttaliku parce que gis nga moom la dooree sax mu nekk koo xamante ne nag bu ñu dellu si waate ci rubrique bi ñi nga xamante ne dañuy dund ak laago waaye yàlla def ñu dépassé seen handicap mm-hmm. dépassé sa handicap mooy yow lii teg nañ la ko waaye tege terewul nga bëgg lii nga xamante ne mooy woy nga ne mm-hmm. dama koy def muy une première nag ñu jël ko ci rubrique bi parce que jëloon nañ fi maman bu takkay femme moom musique lay def mu représenter les femmes ci journée mondiale de la femme waaye tey dañu xalaatoon dem seeti ko parce que exemple la mhm. am na ñoo xamante ne ñu ngi def musique di dund ak laago waaye da leen di da leen dañuy jékki-jékki mel ne ñu taxaw dootuñu leen déggati wala dara dafa metti nag mhm. mais nag li nga xamante ne mooy soutien bi mhm. ñu ngi koy soutenir seen kër Ablaye Mbaye nee na magam gis nga dund na ko toppatoo leen yor papaam ak yaayam di leen ci dundal mu nekk lu metti loo xamante ne ni tey ji euh, seen waa kër seetaanuñ ko waaye tamit jege ñaale Ablaye Mbaye seetaanuñ ko parce que nee na ñoom Yoro Ndiaye kóllëre la ak ñeneen ak ñeneen lépp lu mu xalaat ci wàllu musique gis nga li single la bu mu génne lu mu xalaat ci wàllu musique ñoom dañ ko ci xelal wax ko defal lii defal lii defal lii moom day am ñu muy àndal soirée boo xamante ne artistes yaa ngi koy tëgg dañuy gis ni day dem ay jës fa yu wala feneen mm-hmm. ñu koy jox micro muy bëf di def xam nga loolu c'est pas évident mm-hmm. guddi gi ngay génn donc loolu yëpp muy sacrifié wu di ko def donc dara jàppale la jàppale bi mooy ki nga xamante ne dara jotu sax dafa soxla ndimbal waxantuma laa ki nga xamante ne balaa muy dem day am ku mu àndal surtout guddi donc ñuy encore une fois à chaque fois bu ñu ko defee di lancer appel ñi nga xamante ne ñu yëngu ci wàllu musique ñi nga xam ne comme wax nga ko léegi bokk na ci concours ba yàlla def ñëpp doon wax ne moom moo ko war a jël parce que bëri woon na ci fans Yacine bëri ci ay ñu ngi ko organiser woon dañu amoon problème fii ci mm-hmm. groupe Futur Média donc mu nekk koo xamante ni Kebs dellu si waat rek dafa jar jàppale dafa jar jàppale parce que xale bu am jom la taxawul xaarul dara te bokk na ci ñi nga xamante ni tey ji buñ leen tegee jox leen micro dinañ woy ñu mën koo déglu fan si kontaan donc loolu tey laa leen andiloon tey ci seen rubrique complexe jàpp sa fulla mu mel ne handicap ci ci ci bopp la nekk. ci bopp la nekk. ci bopp la nekk waaye nag euh, lii dafa ci am solo. di wane mhm. ne dépassé sa handicap comme ni nga koy waxee. Mhm. yaakaar naa ne reprise bi dafa am solo lool ndax boobu ak léegi biñ ko fi defee gis nga ñëw tombé comme ni ma ko waxee. dëgg la dëgg la euh, tey ci kanam la jëm ndax itam nag euh, Sénégal bàyyi leen. Mhm.